Bonsoir amis téléspectateurs de Prestige TV alors je suis ngi au de Thiès euh, euh, Thiès coach Abdou Karim coach coach Abdou Karim alors coach euh, entraînement donc c'est réconfortant et ça nous donne de encore plus du courage quoi pour continuer continuer saison voilà merci beaucoup alors euh, day nice ñu ñëw di leen seet si euh, parce que équipe euh, équipe Thiès yo xamantene ñi ngi fi yag nañu raay mi ngi fi ay Thiès mi ngi fi te mën naa wax ne ci équipe garçon Thiès fii nii ñoom rek ñoo nekk D1 te yag nañ fa alors tey jii nii soo may wax ay Thiès lan nga may wax ci ay Thiès de plus est-ce que yow yag nga ay Thiès ba nga ko yoreeg légui ça fait combien combien de temps. waaw ay Thiès bientôt def na fi. 4 ans, 4 hein, ans, voire 5 ans. Donc, mon euh, objectif, ça, c'était au départ, c'était pas devenir coaché. Donc, nous euh, avons ben, projet pour nous monter, pour qu'au moins ce euh, jox club yi les clubs thiessois benn ben, doole boo xam ne da leen permettre au moins sur le plan financier ñu mën a exister ñu mën a subsister sax seen besoins yi Benen bi tamit moy euh def projet bo xamné au moins xalé yu bari tam dinañ si mën a jëriñoo nga jeunesse Thiès bi au moins que lu dem Dakar très souvent di di daani seen doole wala di di dem jouer foofu donc ñu mën resté si localité bi ba pare mën a mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen euh, seen club quoi donc loolu daal moo moo taxoon mu ñëwoon fi par la suite après circonstances yi am ma commencé coacher donc avec euh, l' aide de Ibama ndax Ibama mooy sama mentor en quelque chose si coaching bi moom si ñëpp dugal après ñu nekk ci logique Je mon assistant coach troisième assistant après di di gravir les échelons jusqu'à tey jii me donne euh, head coach bi voilà donc à euh, Thiès euh, loolu daal laa c'est mon wax donc comme nous avons wax rek club le bo xamné ñu second rôle ci championnat on espère que l'autre tam est changé Inch'Allah, voilà. incha lepp dina changé alors sank ma ngi ñew coach.

Tout euh, le monde sport mo wara développer wara avancer ci côté boobu est-ce que amul len ci problème pour entraîner. waaw am ñu problème amuñu problème c'est-à-dire euh, c'est-à-dire chaque fois ñun euh, buñu xolé euh solution Notre suñu rôle tamit c'est de trouver des solutions par rapport que le manque d'infrastructure donc xamna bo dama suñu terrain sax buñ ko défé won di ko gis c'est pas praticable ndaxte ay joueurs seniors lañ yéré té daw intensité bi ñuy entraîner woo mënuñu jouer ci terrain bo xamné ce euh, c'est pas praticable quoi c'est pas aux normes donc du coup euh, femmes ont ay jours il y ne lay pour entraîner euh, mercredi à partir de 19h30 à partir de 19h30 donc nous avons raay dañuy partager deux heures avec quoi donc yeneen jours donc on va au Seneps, donc si site pour s'entraîner terrain di entraîner donc astuce yooyu lañ pour mon au moins normalement les di conditions si condition yu éviter les blessures. Euh, et au autres temps dinañ tax tamit performance par rapport lu l'Union liggéey mais néanmoins il y a un problème d'infrastructure bu réel je pense que le club du Sénégal peut-être que euh, Thiès est un ne moo ça, mais il y a un problème donc il faut que le club entraîner woo foo ainsi de suite avec les moyens nécessaires pour que comme moyens de performance quoi je pense que manque na fi.

ngay fu nga nekk nga fay entraîner ce quartier de lay yëg équipe bi tamit ñu nekk seen wetu kër wala ñu nek ci environnement bo xamné fofu lañ ko sossé da fay bax dootu sur euh, sur encouragement en plus tamit sur motivation xale yi quoi voilà. alors ben message la ben cri de cœur bi mi def la euh, ñun ñëpp monde sport bi parce que man tamit ci la bok basketteuse la ah, donc ñun ñëpp ñoo bokk cri bobu nonu wa Thiès waa nañ ñu gersu euh, homme de de bonne volonté yi nañ ñu ñëw gëstu basket bi nañ gëstu milieu sport parce que sport bi soxla na ko alors euh, coach belle question avant ma lay nga parce que gars yi ñu ngi lay xaar ah, ah euh, ñaata sorti ngeen def ba championnat a commencé ba léegi est-ce que tamit seen sorti à leen ci problème ba championnat a commencé tamit ñaata victoire ngeen am parce que commencé ba mu commencé léegi ça fait pas beaucoup de temps quoi. waaw waaw c'est deux deux deux journées lañ joué donc on a eu une défaite et une victoire. Euh, c'est un bilan positif. Mais quand on eu le championnat, c'est un euh, rôle qu'il joué. jouer. match machines jouer, c'est à domicile. Donc l'objectif euh, c'était gagner les matchs à domicile. Malheureusement, on a perdu le premier match. Donc nous connaissons de ligue. Après le deuxième match que nous joué, ça a été une satisfaction, on a gagné. Donc euh, le Sénèque, moi, euh, euh, ligue am affaire yi moom defe naa amul moom laay wax joueurs yi ne il faut ñoom ñu doon professionnel d' amul club bu mag amul club bu ndaw certes am na quoi si par rapport ak moyen mais nit mooy tuutal boppam te joueur mooy tuutal boppam te boo amee benn discipline dans le travail ak benn rigueur mun na ko apporter beaucoup de euh, mun na mun na ko jox daal beneen loo xam ne mun na rivaliser ak ñeneen ñi quoi donc ndaxte yaay motiver sa bopp avant coach bi avant leneen quoi en tout cas ñun de pour l'instant daal deux matchs à après normalement mercredi prochain on a une ville de Dakar finie, à domicile donc ce sera notre troisième match. et on espère le remporter Notre ñun un objectif c'est-à-dire euh, gagner donc amul. le parce que gagner la respecter. Ah donc c'est un jeu certes mais c'est un jeu pour amener il faut gagner. mais ville de Dakar qui équipe bu Oui, hein. mais mais on les respecte vraiment Notre amener une galerie. Je yi fa nekk xam nañ bi xam nañ ils ont l'expérience mais nous on a notre jeunesse donc euh, on va se battre donc euh, avec les moyens qu'on a donc essayer de remporter on ñun même même motivation les Yamaha, on est là pour gagner donc euh, lui, am nag la xam mais nous, on va a sur le plan technique tactique motivation on le fera ba suñu moyens, fu voilà ñu yem foofu mais dans, ñun daal on est là pour gagner donc nous, ñaan yàlla mu may ñu j'espère que.

merci beaucoup ñoo ko bokk. allez Khadija. ok coach mu nekkoon coach Abdou Karima ah, ñu ñëwoon seet si ko fii euh, Stade Lat Dior de Thiès muy coach équipe euh, ASC Thiès nekk en D1 wax na ko D1 du lu tuuti D1 moyen moo koy D1 volonté moo koy waaye D1 tamit ay source ñoo koy téye euh, en tout cas lii lañ leen indiloon ci seen rubrique sport. mënuma tëj te du ma nuyu sama caméraman bu yanj bi nga xam ne ñaawul muy Cheikh Fall Fall mu yàlla faale ba nopp fal ko man moom laa tàmm moom laay àndal saa su may génn

Euh, li leen lay indiloon ci seen rubrique sport di leen jox dig daje ci beneen numéro merci.